aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmaaniirahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ndokkeel di baalu ak bu baax di rafetlu bu baax ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bi di firi gént officiel delsu ak gént ci seen beneen buntu tey ci wàllu firi tey ñëw gént di tukki laaj ma ci am bari na lool waaye moom bunt bu gàtt la tukki daanaka li gën a baax ci gént la bokk ñu ngi ñaan ko am gént mën nga jaar ci yoon yi mooy envoyé 500 Wave wala Orange Money ci numéro bi capturer message transfert bi envoyé ñu ko def audio gént bi. ñu nekk biti réew comme ni ma ko waxee par abonnement la ci ko mu neex du force 20 euros la wala 20 dollars cent dépend ci euh, li ngay jëf xaalis bi ngay jëfandikoo. tey li ñu waxtaanee gént yu tukki balaa ñu ñëw dañu dana indi benn bunt ci ay gént yoo xam ne foo ko géntee dafay firi tukki defoon naa ci benn vidéo. bi ci njëkk mooy da nga gént beurre beurre yi ngay kii yu voilà yi ngay lekk surtout xam naa séeréer yi xam nañ ko gént gis ko wala diw ñor diw ñor bi ngeen miin nga gént gis ko ci ñam dafay fiir tukki ci aji gént loolu foo ko gént yi dafay firi tukki ci yow da nga gént di leem sa yére wala paase walla ngay ranger sa yére comme kuy waaju tukki du gént gu ñuy firi ñaar dafay firi tukki ci yow baax na ci gént gént sawtul jamal maanaam nga gént gélem bu yuuxu comme ni nga fas neexal mbaam naa nga dégg dégg baatu gélem ci gént dafay firi tukki danga nga gént raw buum wala ngay ràbb ci gént dafay firi tukki gént di yéeg ci otel moo xam ci ascenseur nga nekkoon lu mën a doon dafay firi tukki ci aji gént gént dugg ci hôtel boo xam ne xamoo ko hôtel boo xamul nga gént gis fa sa bopp dafa firi tukki ci aji gént gént njool ba say tànk gudd gën a gudd ni nga miinee tànk nit ñi wala say tànk a gudd ni nga toll dafay firi tukki ci yow da gént def tour du monde laa ko moom ay ay ay ay dëkk yu bokkul ci biir gént dafay firi tukki ci aji gént pantalon ci gént pantalon yi ngeen miin ñu koy sol dafay firi tukki ci aji gént voilà gént ay drapeau yu bari dafay firi tukki ñenn ñi dañu wax na fekk mu nekk ay couleur yu rouge gaa wax nan ko waaye li ëpp solo mooy gént ay drapeau dafay firi tukki ci gént poussière dana ñëw ci vidéo bi spéciale poussière yi ngay bis poussière bu bari mais jàppal ne dafa bokk ci gént yi nga xam dafay firi tukki gént am tasiratu safar maanaam euh, njeexitu ku jóge ci tukki dafay firi tukki ci aji gént danga génti naaw ci diggante asamaan ak suuf daanuwuloo réeruloo ci biir gént gi bu dee génti naaw def naa ci vidéo bi spécial mais fii dafay firi tukki léeg-léeg kon yii yenn la yoo xam ne fu feeñee ci gént dafay firi tukki ci sa dund kon ñëw ci bunt bi dëggantaan mooy gént tukki ki ma njëkkee jigéen ji ëmb gént tukki dafay firi mucc ci coono ëmb waaye di firi am doom bu bariwul coono am na ay détails ñi naan couleur sangam couleur sangam couleur sangam waaye ci cadre bu gën a général li gën a wér mooy gént di tukki ci jigéen ci ëmb dafay firi am doom ci lu bariwul coono. tukki ci avion ñëpp ko bokk ci gént yi gën a baax ci li doomu adama li gént gént la bokk ci charte daanuwul dara gënu koo baax dana firi atteindre sa objectif bu dee ko ami projet dana firi say projet lépp loo ci dugg dina sotti bu dee kuy jàng dana firi réussite ci sa njàng kuy lijjanti mbir fekk nga gént yi tukki ci avion dana firi lool dana sotti ku nekk ci njàqare ki xat-xat gént di tukki dana firi day jeex gént di tukki ci avion dana firi jógee fi nga nekk ci tolluwaay dem fu ko gën kon baax na jigéen loolu ñëpp ñoo ko bokk xale bu jigéen bu amul bu amul jëkkër gént di tukki damay firi bari ay relation bari ay xame bari ay xarit walla mu firi jógee fi nga nekk dem fu ko gën léeg-léeg dina firi atteindre sa objectif ci say say projet moo xam njàng la lu mën a doon kon baax na ci gént jigéen ji doon sëy ba jógee ci sëy maanaam ki tas wala borom këram génn àdduna nga gént di tukki dina firi wërsëgu xaalis bu yaatu bu baree bari boo xam ne yàlla mën na la koo jox bu dee nag da ngaa génn di tukki ak sa borom kër bi nga tàqalikool jigéen ji doon sëy ba tas génn di tukki ak sa borom kër boo tàqalikool dafay firi ne da nga delluwaat ci moom ki doon sëy ba sa borom kër génn àdduna nga génn di tukki ànd ak sa jëkkër ji génn àdduna ànd ak moom di tukki dafay firi beneen borom kër ci ci yow baax na ci gént tukki ci célibataire bu góor nga gént di ko def baax na ci gént ka zalika dana firi soxna ci yow dana firi bëgg dara danga ko jot maanaam di lijjanti mbir dana sotti tukki ci commerçant day firi bénéfice bu bari di firi yokkute ci sa liggéey baax na gént tukki dem màkka ci gént ñëpp ñoo ko bokk day firi xéewal yu bare bari waaye wërsëg wu yaatu ci aji gént lii mooy bunt bi neen indil ci tukki tukki wax naa ne ci gént yi gën a baax ci doomu aadama la bokk surtout tukki ci avion dana ñëw ci train dañ ko préparer vidéo boppam bu dee oto def naa ci ay vidéo génn di tukki ak sa fami ci biir oto def naa ci vidéo boo duggee ci page bi da gis yëpp wa ma zalika alallaahi bi azizin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.